ndeysaan mbokk yi ci diggante Franc ak Sokh ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi ci digg géew bi Franc moo la woon ginnaaw waaye Sokh moom la ñu jàkkaarlool ndeysaan li ma bëgg dama nu nuyu nu yàgg ci diggante Franc ak Sokh ndeysaan ñu ngay doxee rek ñu ngay doxee rek ndeysaan Franc ak Sokh ji ñëpp doon xaar Sokh nga dox di jëm ci moom Franc mi ngi seena la pataake bi ndeysaan Pikine kenn doo yëkkatul waaye Parcelles it kenn doo yëkkatul Sokh sànni na doon na Sokh doon na Franc doon na ndeysaan lamb ji difficile lamb yoo xamante ne nii stade bi dafa fees dell waaye waaye Franc ji doon Sokh song na ko Sokh Sokh rëpp na waaye Franc Franc Sokh Franc ngi doon Franc ngi doon Sokh bëgg na ko mën lu mu koy def Franc Franc daan na Sokh Franc daan na Sokh Franc daan na Sokh soo ko xamul lu ko daan soo ko xamul lu ko daan ndeysaan oh Franc daan na Sokh Franc daan na Sokh guru mu naa si taalibe baay nga Abdalaay bëgg ña sëriñ mu taxaaña say sabaay yaay doomi yaayu rainha de Itapaiva. néegam. amiin keroog maa dugg ci néegam père xam nga lu ma wax. mu ne ma daan ko sa xel dal. daan ko bu pare. waaw maa ngay bëree waaw ni nga bëree tey ni ah? nga bëree na naa ba France. père jàng boxe. ko si mu téye ma Belgique. sama grand xalifa Serigne Mame Koumba xam nga. bàyyi ñi ma jàppale dafa bëri. xam nga ñëw tette ma aussi. amoon nga ne ci ci bëri lay daan. non per man soo bu nekk di def yi yëpp yu muy ne fi def man di jënduwuma ko faale ma ko am naa lu ma gëm am naa ngëm-ngëm te waxoon na ma ko ci signature bi ma ne ko kuy ne bu ma am 18 ans laa gën di jël sama sac dem bërëj ma gëm ko ma gëm loolu wóoroon na la da ngay song daal ah? da ngay song daal si per wóor na ma damay daan tey ah? si wóor na ma parce que sama papa ñaanal na ma di ñaan ñëpp ñi nga xam ne génn nañ àdduna mais boo xoolee yow ak sox ni ngeen def arène nationale mag mbër mag musu koo def waaw sant yàlla baax a baax Modou Mbaye sant yàlla encore une fois bu ma jàppale yëpp maa ngi leen gërëm parcelle mu 26 Grand Yoff Guédiawaye aw ma Pikine sama mbokku njaago yi séeréer yi da ngay génn Pikine voilà 200 pour cent bi loo si wax am na lu mu waxoon